grand leader politique c'est c'est l'américain Peter Drucker qui l'a c'est de savoir entendre ce qui n'est pas dit le président Macky Sall est un leader il gère un État il y a des choses qu'on ne peut pas étaler sur la place publique mais vous savez très bien que ce qui fonde le parti PASTEF n'est pas conforme ak le Sénégal bi ñu bëgg a demee c'est pas du tout ça la philosophie Et un de vos avocats l'a dit. Il y a de ces choses. Non, non, non, ce n'est pas grave, ça correspond à la réalité. On n'a pas l'Afghanistan, on ne veut pas avoir l'Iran, on ne veut pas avoir le Mali, on ne veut pas avoir ces États ici au Sénégal. Et vous savez très bien ce que je dis. Quand, quand l'État, l'État, non, xaran État du wax lépp ci mbedd mi jàppuñu n'importe qui ko toog sa kër rek ñu ñëw fekk la jàppaloo déedéet. mieux vaut anticiper une étape c'est l'anticipation le sens de l'anticipation aussi dañu toog xaar yeewu fi ba yépp ni karaj ñu mel ni Mali mel yeneen dëkk ñu naan pourtant xamoon ngeen woon leen ko def non on anticipe on le fait et on l'assume si antenne bii cette TV laa ko wax le jour le premier jour bi police taxawee buntu kër monsieur Ousmane Sonko à Sacré-Cœur sa télé bii laa la ko wax ma leen arrêté leen les directs que vous êtes en de faire j'ai dit il parce que sa façon de faire ne correspond pas aux exigences de l'heure il y a une autre façon de faire et j'avais cité Talasila des années 90 80 loolu laa waxoon politique da ngay adapté wu ça aussi c'est de l'intelligence je sais qu'ils sont intelligents mais s'ils écoutent des gens comme monsieur Mboup bii ci ni mu koy waxee théoricien ba pare qui n'a pas pratiqué réellement ce que c'est que l'État dugg ci biir xam des politiques